boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mboolem waa daari isbu tarxiya bi réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen sant fii ci daar daari isbu tarxiya ci teewaayu jëwriñu daar ji sëriñ Yuusuf Jóob jublu gi nag mooy ziyaara boo xam ne daari isbu tarxiya fas na ko yéene amal ci cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké gaaw ñaar fukki fan ak juróom ci weeru diggu tabaski wi ñu nekk dëppook samedi 25 juin 2022 ci Touba ci kër Serigne Touba gi jàkkaarloog jumaa ju mag ji kon dinañ ko jox moom Serigne Youssou Diop mu indi kàddu yu woote jëm ci mboolem membre yi ak mboole bokki taali bi yëpp bu ñu noppee Serigne Ahmadou Sidi sàmb ci comité d'organisation bi dina indi ni nga xam ne ni la ñu bëggee ñu dikkee ni ci wattaay wi Serigne Abdou Salam Dieng itam ci comité scientifique dana indi ay fàttali yu jëm ci ziar bii ñuy def ni mu doonee ndonoy lislaam ak fi nga xam ni fa war a nekk ci taxawaayam Serigne Modou Thiam dina soññee ci turu mboolem daara yi nga xam ne ñoo nekk ci isbu tarixia ci biir réew mi ak ci bitim réew ku ci ne taxawaay bi nga xam ne moom la ñuy séntu ci yow ci bis bu màgg bii Serigne Makhtar Thiam dina indi ay soññee yu jëm ci mboolem ñi nga xam ne itam ñooy membre yi ci teewaay bi niñ ko sàkkoo Serigne Modou joxaane ci turu kuréelu isbu tarixia yi nga xam ne am nañu taxawaay bu ràññeeku bu ñuy séntu ci ñoom ci bis bi mu wax ci seen kàddu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi rawatina waa daara Hizbut Tarqiyyah biir réew mi ak bitim réew ci turu direction générale bu Hizbut Tarqiyyah ñu ngi am mbégte kon yëgal leen ne am nañu tawféex Cheikh Mamadou Muntaxa jàppalaat ñu bisub siyaar kon bisub siyaar bi ren euh, le vingt cinq juin deux mille vingt deux bisub gaaw lay doon dëppoo itam ba tey ci diggu tabaski bi ñaar fukki fan ak juróom ci kër seexul xaddim gi nekk ci tuubaa jàkkaarloog jumaa ji muy ak cant gu rëy ci bis boo xam ne dina mën dinañu mën a jàkkaarloo waat ak sunu sang bu tedd boobu di Cheikh mun taxaa ngir seereel ko sunu cant ndax lott nañ ci waaye dañ ciy def suñu lépp ñaan suñu borom gàttandunu ak dimbaleenu luy tax mu mu mën cee am ngërëmal yàlla suñu borom di yëgal mboolem njabootug sëñ Tuubaa gépp te bu ñu tàmbalee ci Cheikh Mamadou Bachir mi nga xam ne moo yor kàddu sëriñ bi kenn bañ a des ci njabootu sëñ Tuubaa gi ndax ñooy suñuy sang di leen ko yëgal ndax at mu jot dañ ko daan ànd ak ñun ngir xam ne Hizbut Tarqiyyah kenn moomu ko alali sëñ Tuubaa la euh, di ko yëgal itam seex yi diggante Mbàkke ak Musóobe ak suñu bokki bay Faal yi yi nga xam ne at mu jot ñoo koy ànd ak ñoom loolu kon euh, buñ ci jógee itam di xamal ñëpp ne bokk yi am di jàmm yi dëkkandoo yi kenn desul ndax Hizbut Tarqiyyah alali Serigne Touba la joo xamante ne ni ko Cheikh Mamadou Bassir di waxee ne soldaar yoon wi la ko sëñ Mountakha de kon soldaar moom armée ñëpp ko bokk kon euh, ziar bi ñoo ñëpp ko bokk euh, sëñ Atou sunu jëwriñ ju tedd ji ñu ngi ñaan suñu borom di yokk ci moom yërmande di wàcce ci kawam ndimbal di wàcce ci kawam ngërëm saa su ne ak njëgal euh, moom itam noonu la ko daan waxee di wax ne isbu tarxiya du isbu tarxiya waa isbu waaye isbu tarxiya yoonu murit la ginnaaw loolu nag ñu xam ne ziar bi dafa ñëw ci contexte boo xamante ne daf ci am xaas jagle loolu mooy Cheikh Mouhamadou Mountakha dafa dajale waat njabootu isbu tarxiya gépp daan naa leen wax ne Euh, ziar ki njëkk bindu Hizbut Tarqiyyah ci 1975 bu ci bisub tey ku fi def ku fi def sax benn fan ci nga bokk waaye tey ji nag dafa am lu lu lu yees ci ci ndimbal loo xam ne lu mun taxaa ñëpp bëgg nañ ko waaye moom la ko yàlla jagleel mooy dajale waan njabootu Hizbut Tarqiyyah yëpp tey jii ñu mën a ñëw doon mel na mbooloo loolu nag euh, nit mën na koo bëgg bi ca jéem waaye yàlla moo koy jagleel ku ko soob dafa mel ni tey jii suñ doon wax raaya bi nga xamante ne moom la sëñ Muntaxa yor ba tax mu mën loolu boo demee ci muqaddimaat di nga ko fa fekk sëñ Tuubaa di wax ne lakkal mojizaatul xurru yaa xayra sayidin alayka salaatullahi yaa jaamiha shamli la may mu mën a dajalewaat mbooloo mi aw ay melo la yu ne ci moom laxat kunta sabbaaran shakuuran wa naasixan alayka salaamullahi yaa maahiyal jahannam loolu kon dafay loo xam ne ku ku ku jàngat dunduk moom Mamadou mun di nga ko fekk di nga fa loolu ci biir mu mu doon loo xam ne da ko jëf dund ko ba suñu borom may ko ca ay ay ay ay jagle yoo xamante ne ku ne xemeem na ko ci moom ma bëggoon nag ñu xam ne ziar bi moom lenn rek ko tax a jóg mooy sant ko fedd feddali suñu laxasaay yeesalaat suñu jaayante ak lépp lu nu am lu dajale ko dem fekk ko jébbal ko suñu àddiya lii nag dafay loo xamante ne dafa am lu mu laaj yitte ju kawe la laaj ndax euh, lépp lu nit di def ci Serigne Touba na koy natt ci xool moom sëriñ bi aw doxina ndax digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam junni at laak yu topp waaye moom fexe na ba jëfam ci toolu lislaam deme na noo xamante ne moom ñu jëkk ñi ak ñu mujj yi xam nañ ne kenn gañawu ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon ñun bu ñu liggéeyal Serigne Touba te tuur deret ñu tase ñu fekk foo xamante ne tuur deret dañ koo araamal kenn lañ tuurloowul deret kon suñ jëlee suñu alal di ko jox sëriñ bi war nañ ko defee noo xamante ne ñu tuuroon seen deret seen deret buñ ñu gisee nawloo ñu loolu nag dafay loo xamante ne lu mën a ne la ndax sëñ Tuubaa moom diggante ma yonent bi li muy sori sori daf lay wax ne la maaw mi daal di kaddi maay suhada mboolem ña xare woon ci lislaam ñoom xam nañ ne xalim ak sëñ Tuubaa ak daay daa ji nga xam ne moom la doon bindee xam ne na daraja jooju moom moom moom moom ñoo tolloo waaw ci mu ne la euh, kama midaadiye bihi wa qalami jaala misla asyufid wa aswami jaasi ak xeej ya doon xeex ànd ak yonente bi moom xalima ak daa ji sëñ Tuubaa di bindee ñoo tolloo daraja loolu nag ko ku mel noonu dalay woon wóor ne kon yitte moo ko fa yeggale positif ak ngëm moo ko fa yeggale kon nun bu nu yor melokaani li xew ci jamono muy ñuy wax donful yaqin mooy mel ni koo xam ne nga naan jamono daa soppiku nga bëgg doxee ak taalibe goo xamante ne da koy soppi mu nduroog jamono ak taalibe nañ ko delloo ca cosaan la loo am joxal sëñ Tuubaa te di ko xeeb wallazina yu'tuuna maa aataw wa quluubuhum wajilatun annahum ilaa rabbihim raaji'uun kon lii mooy liggéey bi moom la ñuy woo ñëpp ñu xam ne euh, Cheikh mun Mountakha mii ñuy fekk ji nañu waxtaan tuuti ci moom ndax da ciy baax xam nu ñu jëriñoo ci moom ndax naalam yu rëy yii mu naal naan la yoo xamante ne baax na ñu xam ne war nañoo dollee góorgóorlu ñun dong yi ndax euh, moom bu yëkkatee dara rek ñun dañ ko war a jëf fi saa si euh, naar yi nag yaatu na waaye bu ma ci tuddee benn rek muy euh, mu jàmmaaw bii nga xamante ne moom mooy université bi di juróom benn fukki bâtiment ak juróom-ñeent waaye tey jii dafay toog xaaj bâtiment yi ngi ci tàmbali kon bu tolloo ci xaaj moo lay wan liggéey bi des na moom nag dafa bindoo noo xamante ne la sëñ Saliou doon wax naan joxe bi dafa jiitu laaj bi moom jàpp na ne dong dong bi mën a kittale ku ñëwul it moo la war a moo la war a jëfal waaye nun nag nan jaajuwaat waaw nañ jaajuwaat te xam ne tey jii war nañ koo fekk seeg noo xamante ne luñ am def ci ab dongo nag sañ naa jëfandikoo tanaasaul mawtamaa mooy fexe ba roy saxaaba yi ci ñoom dañ doon xëccoo dee ngir yëkkati lislaam ñun turloowuñu deret waaye ñu jël sunu alal di def infaax ngir lu yëkkati lislaam ñun sañ nañoo jël tanazon mawta mawtama def ko suñu yóbbal di séntu nag ci sëriñ bi am ma daw rabbu la naam bi di am laaki nisaab nañ leen gàttandoo woon dimbali leen ñun tamit ñuy séntu nu gàttandoo nu dimbali nu ba ñu jëf loo xamante ne kenn ku ne ci ñun boo xoolee sa morom di nga xam ne du loo mën la yi tëj nag mooy ma bëgg rek ñu xam ne Cheikh Mamadou Mountakha mi lañ ko war a sante mooy li mu nu dajalewaatee Hizbut Tarqiyyah gii lépp doon benn bopp man de xeeb naa ci sama bopp ndax xam naa ne lu ci sotti doonu ma ci dara ndax li mu laaj mënuma ko waaye nag dama bëgg nun ñëpp ñu xam ne kenn ki ko jëf muy Seexul Xaddim nañu fàtte suñuy jëmm te gis jëmm moom sëñ Tuubaa suñ ko defee dinañu ànd ànd bi dana rafet te dinañ am ngërëma sëñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bisimilah barke borom Tuubaa kon ñoo ko déggandoo jërëjëf sëñ Youssou yaakaar naa ne woote bi mat la na ci fànn yëpp kon bu dee ci wàllu organisation faaw dañ ko dëppaleek dimension woote bi ñu def ko ci ñaari xaaj bi ci njëkk mooy li nga xamante ni bii mooy. ndigal yi mu jëm yi mu digle mu jëm ci wàllu wàccaay wi ci barab ba nga xam te ne bi fa la ñuy jaaree ci diggante aménagement yóbbu fa ay bâche yoo xamante ne bii dana sàmmonteeg fa kilifa yi war a nekk ak sëñ bi ak waa njabootu boppam gi ak fi invité yi nekk ak fi jëwriñ yi nekk ak fi xale yi nekk ak fi soxna yi nekk defaree ko noo xamante ne bii lu mbooloo ñu bari bari bari bari kenn du tumuraanke ngir bis bi moo ni demee loolu it day dëppoog barab bi ñu taaral ko noo xam ne ci wàllu ki fu ñëw ku ne xam ne bis la boo xamante ne bii ndamal Sëñ Tuubaa rek moo ci mën a am ndax poster yi affiche yi bandool yoo xam ne boo ci jàng rek mu fàttaliwaat la li nga xamante ne bii moo ñu indi si kaw suuf muy jaamu yàlla ak liggéey wàllu sonorisation bi it lu mbooloo mi bari bari bari ci li wër jumaa ji kër Sëñ Tuubaa gi nañ fexe bu fooy mooy nekk li sëñ biy wax ak lañ fiy wax lépp boo amee teewlu di nga ko taataan ba dara du ci écran géant yi it liñ digle mooy fu nit nekk fexe ba nga jàkkaarloog sëriñ bi te lu tee xat-xat loolu di ci am matuwaay yëpp fas nañ ko yéene jël ngir jëfe ndigal li li ci mooy ku ne xam na ne ziar bi dana am ñoo xamante ni duñ mën dikk ndax réew réew yi ñuy nekk mën a diw donte dana am ñuy ñëw waaye ñëpp duñ mën a ñëw kon digle ne ñu def direct boo xamante ne bi ci télévision yi ak ay liens yoo xamante ne bi fooy mën a nekk ci àdduna di nga ko mën a suivre en te mën a dund li nga xamante ne bi mooy bis boobu nga xamante ne bi bis bu la la ci nag mooy la mbooloo mi bëri bëri bëri dinañ fexe ba ñu yor wàllu ndox mi yor wàllu café yi yor wàllu accueil yi wala wàllu sécurité ak conservatoire ak waa culture ku ci ne di def sa liggéey te doon benn rajo la doon loolu nag pour moo nekk faw dañuy lëkkaloog ñi nga xamante ne bi ñoo fi nekkal nguur gi diggante sous préfet mu jox ndigal ñi nga xamante ne bi naka jekk fu organisation bu mag amee dana yabal waa police yabal waa sappeur yabal waa de d'hygiène waa di sanitaire ak waa croix rouge pour ñëw ànd ak ñun ñu taxawu mbooloo mi ba kenn ku ci la la tax a jóg nga am ko delluwaat ci jàmm te dara du fa si sëkk beneen ndigal li moo ci daara ji nga xamante ne bii fa la mbooloo mi dalee diggante wàccaay gan ñi gàttanuñ leen taral leen kenn bañ a xiif kenn bañ mar ñëw ci jàmm delluwaat ci jàmm daal lañ jàpp ne bu ñu ko defee boole koog ñu yor wàllu organisation ñu identifier leen ba képp koo xamante ni yoroo base boo xam ne base organisation la nga xam ne da war a ñëw ñu dalal la nga déglu te lu ñu la wax rek nga jëfe ko loolu suñ ko defee boole suñuy xol mu doon benn lu barab bi barab bi xat xat xat xat suñu boolee xol yi rek yaakaar naa ne barab bi dana yaatu ba kenn ku ne foo toog di nga mën a teewlu sëriñ bi loolu rek am solo teewlu ko ak gis gi jërë ngeen jëf aoudu billahi min ashaytaan irajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyai wal mursalin sayidina wa maolana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummati ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh kon mbokki julli mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziara te jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan suñu borom ko fi lool. ñëw tuuti rek ci li nga xam ne moo ñu fi dajale mu yitte joo xam ne du am fu mu tegul la ci lislaam ndax ku xool mbindum Cheikhul Khadim te buñ ko waxee yóbbaale na ñun ci ñun mboolem dégg yi nga xam ne yëpp dañ koy baluloo ci alquran ak ay hadis dafa ñoo digal ne nañuy zaare ji. ndax moo ne zur man nga bëgg mu wax na itam ne inna alladina ila sarsara qad qasadu ziyaarati faraqu daarini aw zaara ñi jóg dem fekk ko foofa wax na tuyaaba yéen say amee te loolu mooy tàggoog bàkkaar ziyaar nag di lu bari ay njëriñ moo taxoon sëñ bi di ñu wax ne wala tazal ilayhi zaahidaayi lahu bi ma stataata min ataayi mu ne bil bul deñ di addiyaal sab sëriñ ci kem sa kàttanam toll kon looloo tax ba bu direction générale jógaatee soññaat nit ñi ngir ñu war a jóg delluwaat sëriñ bi loolu kon dafa dëggal rek ndigalal sëñ Tuubaa lu ñu digal kon faw ñu xam ne ñoo jaayanteeg sëñ Tuubaa ci di ko jox suñu alal ñoo jaayanteeg moom ci jox ko suñu bakkan loolu tax waxtu nekk ñu war di delluwaat di yeesal loolu euh, dem gi itam mu am ay njëriñ yeneen ndax dem sëb sëriñ mu xool la loola day am lu muy def ci taalibe moo tax mu ne fa nasratul xubbi min alcheikh ila muridihi hiya almazaya wal ula bëti cofeel yu la sab sëriñ ne jàkk xool la nee na moo lay may ak kawe moo lay may ay ngëneel bi nasratin yuxniika mawlaaka biha an kasratil kaddi fakkun muntabiha nee na bët yu la sab sëriñ xool dana la fegal coono yoo waroon a sonn lu bare bari ngir egg fenn wala ngir am dara sa sa boroom te itam nee na dana la dana la woomlu loo dana la may koomum àdduna ak moom a àllaaxira kon ziar bi daal foo ko uh, takk rek ci pas-pas war na koo weesu ngir ni ko Serigne Youssou waxe feddali ak cant suñu digganteeg Serigne bi waaye sedd feddali ak jaayante suñu digganteek moom waaye ndax ñu xam ne itam addee lu mënta ñàkk la te waxtu wu nekk ñu war a dem di koy yeesalaat kon lii daal mooy kàddu yi nga xam ne moom lañ ciy indi wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñi ngi ziar mbokk taalibe yëpp dellusiwaat nag ci li nga xamante ne bii woote nañ ko te jëwriñ daara ji leeral ko léegi muy ziar bii ñuy dëgmal tam nañ suñ kanam ñu ciy sant nag Seexul Xadim Mbàkke di ci sant Cheikh Mouhamadul Muntaxa Mbàkke mi ñu bokk yaakaar ñun ñëpp te tawféex ji nga xamante ne bii moom la ñu defal ñu war koo sant ndax bi ñu ànd ak moom weeru koor gi ba mu jeex lam ñu defal ca kori ca guddi bañ jàngee xasida yi ba noppi mu ñëwaat ci suñ biir soññaat ñu nañu saaba yi comme li nga xam ne jëwriñ daara ji doon na ko wax léegi wax ne tanazawul mawtu maanaam saaba yi dañ doon xëccoo dee ngir yëkkati baatu yàlla suñ borom lislaam Cheikh mu Mountakha nañu saaba yi mu àndoon ak Rasulullah sallallahu alayhi wasallam lañ amoon taw tawféex la ne feex jooju yéen suñ borom da leen ko defal yéen waa Hizbut Tarqiyyah dangeen ko am loolu nag war ñu juralaat kenn ku ne ci ñun nga war a delloo sëñ bi teraanga jooju nga xam ne defal nañu ko muy sant ko sant gi nag dañuy xam ne ñun fii kaw suuf dara indiwuñu fi lu weesu ngërëmal sëñ Tuubaa sàkku ngërëmal sëñ Tuubaa muy guddi muy bëccëg muy suba muy ngoon loolu rekk moo tax ñu nekk ci kaw suuf guddi ak bëccëg nag loolu moom jaayante la ndax liggéey yi nga xamee dañ ko seq yëpp leneen lu ci ne lu jeex ñu teg ci leneen lii dañ daan dégg sëñ Abdoulaye Mbacke di wax ne liggéey bu jeex nañ ci sof leneen fii ak ñuy dem kon lii moom moo ñu fi indi moo ñu fi bàyyi kon ziar bii diggante bii li muy xat xat xat wóor na Cheikhul Khadim Mbacke jëlum daara ji li nga ko waxee jekk nañ sant rek la ñuy def te xëccoo gi nga xamante bii fa lañ toll li nga wax day dégg diggaat na dikkaat na mooy tur deret moom faat na ndax waxu soxlaatuñ ko ci lislaam waaye pas-pas joxe sa alal ci yoonu Yàlla muy lu wér loolu moom fii lañ ko fekk te sëñ Tuubaa yàgg yoonam wii loolu la laaj kon ñu ngi jugaat di jaaju di woo mbooleem daara biir réew mi ñu xam ne njëkk nañoo def rassemblement Touba ngir ngir lancé ko bañ ko lancé sax ñu bëri jàppoon nañ ne bis booba ca lañ ca lañuy pare ziar bi ñu defaat beneen deuxième rassemblement Dakar loolu bañ ca ñëwee taw feex lañ ci sëñ Tuubaa defal ba fi mu toll nii eh, daara ju ci ne yaa ngi wane ne man damay sant sëñ Tuubaa ci nit ñu dikkee waaye nag ñetteelu rassemblement bi nag Touba la ñuy war a ñëwaat rassemblement boobu nag rassemblement sant lay doon fi mu toll nii am na fu ñu toll waaye nag dafa laajaat kenn ku ne xam ne lañ ca doon def lépp nañ ko fatte te xam ne dañoo dëgmal koo xamante ne bii mooy suñu sëriñ mooy mooy suñu yaakaar sëñ bi bisu penc sëñ Blaat Mbàkke wax nañu ne murit buñ teg ci jàkk bu ñu wax waxoon ne mën nga am beneen sëriñ bu du sëñ Tuubaa boo mën a jug boo jugee doo jël yet waaye jaay si ngay jël sa biiru bàmmeel lay sa yitte suñ Saliou Mbacke wax nañu ko ne loo fa defut doo ko fekk kon kaw suuf li ñuy liggéey lépp jaayante ko Cheikhul Khadim mooy suñ dund gépp waxtu wu ne ñuy jaayante ko Cheikhul Khadim luñ am suñ Bàmba ko moom. kon loolu ci la ñuy waat mboole membre yi biir réew mi ak bitim réew bitim réew nag ba Elimane Sarr ñëw fi tey jii ñoo koy waxal gis nañ fi liggéey bi toll gis nañ biir réew mi fi ñu fi toll xaw nañ leen a jekku waaye nag ñu ngi waajaat waaye li ñuy wax bitim réew nee nañ. nda si rassemblement bi ñu defee Touba ñooy man cellule nationale yi loolu nag yóbbante la waaye fi mu toll nii ñun ñoo leen jekku cellule nationale yi jekku waaye ñi ngi ñaan Sëñ Touba dafa ñu taw feex mboolem daaru yëpp kenn ku ci nekk suñ eh, accès ci jotaay ba ñëpp am ndam kon daal lii laa ci bëggoon a dolli tey wax ne woo ci murit yëpp nag ñu ànd liggéey Sëñ Touba ci ni nga xam ne la ko jëlee daara ju wari bàkk borom Touba bismillahi rahmaani barke sëñ Touba xaadim rasool suñ yaakaar ñu ngi siyaare bu baax a baax tey sant ndaje mii ñu fi woote ginnaaw kàddu yi nga xam ne sëñ jëwriñ sëñ su Jóob wax na ko fi mu jëm ci wàllu ziar bi jëwriñ yi fi àddu yëpp li ñu war a leeral ñu leeral ko may wax na ci turu ñun membre yi nga xam ne jëf yi ñun ñoo ko war a jëf ginnaaw ñoom xàllal nañu li ñu war a xàllal xalaatal nañ ñu jëf ju rafet ju teew lépp lu jëm ci organisation bi leeral lañ ñu ko muy ziar bu sell boo xam ne ci lañ war a jublu ñun li ciy suñu wàll nañ ko xam li ci jiitu mooy dañoo war a siyaare ji sëñ bi liñ war a dajale kenn ku ci nekk fii ba bés bay jot bésu set nañuy dajale di ñëw di wuti di di andi ba ba bés bay jot dara du fi doy. leneen li nga xam ne moo si topp muy lu jëm ci wàllu tamit organisation bi nii ñu ko waxee yar ak teggin yi ñu mas a xamee nuñ ko mën a dollee nañ ko gën a def teraanga ju war suñ digganteeg suñ mbokkum taalibe ngir jataay ba gën a tawféexe nañ xam ne it ci liggéey bi la bokk ci sàkku ngërëm la bokk ñëw gi na teel kenn ku ne fañ la yemale na nga fa yem lañ la def loo nga def ko bu baax mbooleem ñi responsable secteurs yi ak ñi xam ne ay membre lañ ci secteurs yi nañ topp seen i jëwriñ li leen sant ñu def ko nañ ko war a defee bu ko defee kenn ku ne boo defee li nga war a def mel ni defal nga ko mbooloo mi yëpp leneen li nag mooy mënumaa ñàkk àddu ci li nga xam ne sëñ Yuusu junduñu ko tamit muy boole gi nga xam ne euh, sëñ tubaa Seex Muntaxaa Mbàkke boole na ko mbooloo yi te tey lii nekk occasion bu mag boo xam ne ndax ginnaaw bi ñu génne ci ñaari ziyaar yu daaw ya ci la ñu joxoon ndigal boole mboolooy tey bii ren jii nag mooy première occasion ziyaar yi nga xam ne kenn ku ci ne bu ko sa morom daan def sa xel na ci sa xol na ci nga yéene leen ndam lool ren ñu bokk ànd ndam yooyu kon gëndaloo na tey na ci feeñ bu baax a baax ba nga xam ne doole ji nga xam ne sëñ bi waxoon na ko na ci feeñ ndigal lim ñu joxoon na taaru ba mu wóor ñu ne ñun ñëpp ndigal lam ñu joxoon bokk nañ ko def ci def ko ku loolu dina dina seral xolam xam ne fam ñu féete ak lim mas a daj ci ñun ba tey jii loola fàttewuñ ko te ay gor lañ yoo xam ne yi faaw dinañ ko woon ne ko ay gor lañ ni nga daj ci ñun xam nañ ko kon nag ñoo ngi féetliwaat cant googu di féet di féetliwaat membre yi lépp loo xam ne war nañ ko cee def jongante yeeg lépp defe naa ni ñu ko waxee leer na naañ kenn mënu cee teg lu ko gën a kawe kon nag ñoo ngi siyaari ñëpp di sant bu baax a baax jërë ngeen jëf aouzu billahi mina sheytaani rajim bàkke borom tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi ziar euh, mbokki taalibe yëpp di nuyu mboolem waa Hizbut Tarqiyyah di nuyu mboolem mbokki taalibe yi ñi ci biir réew mi ak bitim réew di nuyu itam mboolem képp koo xam ne euh, yaa ngi seetaan wala nga ñuy dégg mu di mboolem rek kuñ bokkal réew mi ak kuñ bokkal Serigne Touba ak kuñ bokkal lislaam euh, li xaw nag jëwrin yi jiitu wax nañ ko muy Hizbut Tarqiyyah moo waajal ziare ji Serigne Touba Cheikh Mouhamadoul Mountakha ziar boobu nag jàpp nañ ko le 25 juin mu dëppook ñaar fan ak juróom ci weeru wolof ci atum 2022 man nag wax ji may message bi may lancé maa ngi ko jëmale ci sama mbokki kuréelkat yi nga xam ne ñoo bokk di yëkkati xasida yi te sëñ Mountakha wax ne sëriñ bu wax ne euh, buñ doon xare ñoom ñooy ñi war a jiitu kon daal juróom fukki kuréel ak benn yi nga xam ne gannaaw ba sëriñ bi boolee mbooloo yi daara yi ñoom ñoo nekk ci isbu tarxiya ak mboolem ñi nga xam ne ñooy soppe yi nga xam ne yëkkati xasida yi ñor na leen kon ziar bi seen ziar la kenn waruñu see man ni ñu war a mënee ci xare noonu la ñu war a mënee ci joxe noonu la ñu war a mënee ci euh, bis ba suñ taxawaay ci wàllu colga ci wàllu njàng ma ci wàllu yitte yi ak ci wàllu àddiya yi buñ ci kenn man sëñ Blaat nag daf ñoo waxoon ne sëñ Tuubaa nee na ku ma defal loo mënul ku ma defal loo man naa la defal loo mënul ku ma defal loo mënul nag naa la defal lu la jomb képp koo xam ne euh, jox nga ma sa lépp man Sëñ Tuubaa naa la ko téyal defaral la sa lépp ku am loo ma jox ci sa bopp la ci des nga téye ko la nga ma jox dinaa la ko defaral la nga téye ma bàyyi ko ak kon nag ñun buñ dese dara nañ jox suñ lépp Sëriñ Tuubaa na ñëpp ñëw wuy si woote bi muy membre muy soppe képp koo xam ne daal xasida ñor na la kuréel ñor na la ak foo mën a ne ci réew mi ak bitim réew ziar bi sab ziar la nañ la ciy woo bu la ci kenn man ci barkeb Serigne Touba. sëñ Blaat dañoo waxoon ne itam sëñ Touba toog na juróom-ñaari at yoo xam ne nee na juróom-ñaari gisu ci dara gisu ci kenn nee na gisul góor gisul jigéen gisul mag gisul ndaw benn sarax buñ ko jox nekkul ci loxoom du àdd yi juñ ko jox nekkul ci loxoom. nee na loolu nag ku ci jaar ba jàll képp ku bëgg ci yow dara nee na war ngaa def loo man ak loo mënul kon nag nañ def luñ man ak luñ mënul bu ñu kenn man ci ziar bi euh, wasalaam loolu rek laa amoon lu ma ciy wax jërë ngeen jëf di sant ñëpp. jërëjëf kon ñoo bokk dégg kaddu yi nga xamante ni moo fi jib dale ci jëwriñu daara ji sëriñ si Diop ak mbooleem jëwriñ yi nga xamante ni euh, ñu ngi ci. di fàttali ne bis bi gaaw lay doon ñaar fukki fan ak juróom ci weeru Zulxijja gi ñu ne muy digg tabaski war a dëppoo ak samedi 25 juin ci Touba. ci kër Serigne Touba gi nga xam ni moo jàkkaarloo ak jumaa ju mag ji kon nag bu ñu déggee kàddu yi gis nañ ne wàccaay wi amul fenn fu ñu ko yemale ba keroog ñu yegg ci bis bi fu ñu toll woon nañ ko xeep ci li nga xamante ni moom la ñuy jëf ngir xam ne ki ñuy fekki ameel nañ ko cant goo xam ne lott nañ ci kon nag lépp loo xamante ni suñu mën-mën la ak suñu kàttan lu ñu mën ak lu ñu mënul nañ ko ci def ngir njariñ yi yëpp nga xam ne sëñ Abdou Salaam wax na ko ci ziyaare sëb sëriñ li muy jëriñ loolu lépp suñu borom defal ñu ko ci tey ñaanal Cheikh Mouhamadou taxa mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ba mboolem li mu yéene ci liggéeyu sëriñ Touba mu matale ko te ñaan ko ak moom wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ngeen bëggee am mboolem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mboolem vidéo yi fi bàyyikoo